ci bi. ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante ok ay jongante. dañuy jongante man a ñàkk a yéen a ñàkk mais man ma sax dama bëgg bàyyi mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def. wala léegi da nga bàyyi ñooma ñaar nga jëli njaago bi jëla góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan bàyyi moo doon wax waxu jabar jabar waaw c'est bien yow la may premier njëkkee bi xanaa non non pour man la bu déggee tëggkat ba naan pataas kenn nam du kenn rumba rumah ah, surat dah surat dah surat dah surabil batas surabil batas pinyek eh, pinyek capra cakin capra cakin capra pindalo capra cakin gaiti cakin cakin man cakin cakin dégg nga pindam eh, pindam ram cakin cakin batas ki tabax ki tabax ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah hmm? alors le petit-fils a dit tas ma tas rambe ki ndax et le grand-père a dit la ilaha illallah et il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tucc tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkanam yi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man lay jëm a suuf Amém, tchau, tchau, tchau. lii moom faw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naa trop bu ko defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Bombardier le B52 bu Mbour ba sunu làmb ñëw ci carrière am ak la ko dese ci ay at Bombardier va-t-il anticiper sa retraite loolee mooy question ba ñu posé moom le B52 de Mbour mi ngi toll ci 44 ans ci arène beeg ñaari année balance yu mu tegale at ma mu juddu ba boo ko xaymaa day toll ci ñeent fukki at ak ñeent âge de retraite bi CNG xaatim ci kayit boo ko xaymaa day toll ci

noppali jég moom en tout cas ak lu làmb ngi ubbi seen gët di xool ba xam naka la Bombardier yi def noonee la def ubbi seen bët di xool ba xam ndax diggante Balla Gaye ak Boy dana taxaw bile combat bëri nañu ciy wax waaye ba léegi dara sotteegu ca suñu papa Gaston moo fi génnoon ci wasaare ne moo doon dox bile combat jamaykee njiital jam production moom mu nga woon ca combat ba sori woon ca lool gannaaw ba mu tojee arène nationale ci diggante Franc a teg dañu koo xeeb moo tax ma toog di leen déglu toog di leen déglu nag taxul ma bàyyi bile combat ndax bokk na ci samay bëgg-bëgg rax ca dooli ne bile combat ku ko dégg da naan diis na ci jamaykay waaye diisut ci samay partenaire ñi ma àndal amul benn combat ci kaw suuf bu diis ci ñoom am nañu xaalis bi mën nañ ko te am naa jot bi rax ca dooli ne beneen combat bi ma bëggoon ci fin de saison bi mooy diggante Sa Thiès ak Yékini Senior am na combat bu ma doon dox diggante ñëpp xam ne fa ma tegoon sama tànk ba léegi tey la waalu gën a ay bu ma dellu mu gën fee neex ka war a dellu si waat ci làmb ji fii toj mooy mbër ba ñuy wax Zambala ku wax Zambala wax ki fi daanoon Mamadi Ndiaye le 17 juillet 2018 moom gonek Boy Niang atum bi moo ko toj def fi lu jaaxal ñëpp ba mu jógee ci digganteem ak Mamadi Ndiaye la taxawal digganteem ak DJ bile combat jey production moo ko tëggoon mu waroon am ci ca Iba Mar ci ginnaaw yaa génn ci carrière am musu koo am musu koo gis moom daal loo ko wax lu dul kaay bëre combat bi waxoo ko dara jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci étu yéen kaa bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci bi ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante la. ok ay jongante. dañuy jongante man ak yow. kon nag jongante bi saf saf. yéen a ñàkk a saf ñomb mais mademoiselle dama bëgg bàyyi. mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def wala léegi danga bàyyi bàyyi ñooma ñaata nga jëli njaago bi jëla góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan bàyyi ma doon wax waxu jabar jabar waaw c'est bien yow la may bëgg a njëkkee bi xanaa non non man la boo déggee tëggkat ba naan pataas. kenn du kin rumbax. rumbax ah, c'est pour les c'est pour les rabel batas rabel batas piñe piñe. cabara càkkin cabara càkkin cabara pindalo cabara càkkin gaay tii càkkin càkkin man càkkin càkkin dégg nga pindam ram càkkin càkkin ki dabax ki tabax c'était son grand son grand-père de dire la ilaha illallah mm-hmm. alors le petit-fils a tas ma tas rambe ki après a dit laa ilaaha illallaah il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi la dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tucc tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkanam bi benn paax benn il fait avec moi bàyyi man lay jëm a suuf Come on, coming lii moom faaw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naat torop bu defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante.